suñu jafe-jafe daal euh, bëri na tey looloo tax sax si journée bi tey nekkul journée boo xamante ni da ngay fecc di lekk di naan di ree loolu taxul journée bi daal di juddu li tax journée bi daal di juddu moom mooy plaidoyer yi nga xamante ni dañ ko war a def ak sensibilisation bi nga xamante ni dafa daf ci war a ànd ak revendication yi nga xamante ni daf ci war a ànd. tey tax na tey euh, boo xoolee Djida Thiaroye Kaw nekk na commune boo xamante ni moo gën a ngand ci Pikine daan te moo ëpp handicapé. boo de xool li nekk ci am handicapé ëpp na trois cent et quelques personnes ndaxte defuñu ba tey pour que ñu mën ko ñu mën a euh, rassembler commune bi yëpp nga xamante ni dinañ dinañ mën a xam ñaata handicapé moom moo fi nekk parce que defaguñ ko. tax na ñu ne tey suñu plaidoyer mooy commune bu mel noonu. war na mun a am maison inclusif un maison des handicapés boo xamante ni dafay amaale ay chambre de métier pour handicapés yi nga xamante ni perte nañu perte nañu seen jàng ñu mun leen former en métier ndax ñu mën a gaje seen seen vie dignement ma nga xamante ni tamit jigéen ñi nga xamante ni tamit ah ay jigéen lañu nekk des couche vulnérables ñooñu tamit dañ leen a war a jàppale ci formation ak euh, ak euh, ak euh, formation lañ leen war a jàppale ñu jàppale waa leen tamit ci ci financement ñun tamit ñu ngi ñu ngi réclamer waat li nga xamante ni tey tous les douze communes du département de Pikine seeni personnes vivant avec un handicap dañuy jot subvention ñun tamit ñu ngi naan maire na corriger loolu handicapés yi nga xamante ni tey ñoo nekk ci commune bi mu defal leen subvention parce que dañuy am ay activité yoo xamante ni dañ koy war a def saa su ne boo amul moyen boo xamante ni tey Ah, amoo loo noo mun a defee activité boobu yéen seen seen maanaam ni ngeen ni doxalee ci commune bi dafay des. waaw ah, côté boobu plaidoyer bi mooy euh, ñu ngi sant le président Macky Sall parce que moom moom moo ñëw indi la loi d'orientation sociale kenn xalaatu ko woon moom mi nga xamante ni c'est un président social kon donc ñu ngi koy sant di ko gërëm. loolu tax na ba nga xamante ni tey am nañu carte d'égalité des chance ñu bëri ñu ngi ci bénéficié wu ci carte d'égalité des chances boobu le le DG de Dakar Dem Dikk si la mi ngi noonu tamit ci transport bi tamit may na handicapé yëpp deux ans ñuy dem dugg ci kaar yi di dem di ñëw te duñu fay dara kon donc mu des faju beeg euh, kii yeneen yeneen yeneen loi yeneen yeneen yeneen application yi nga xamante ni moom moo ci des xam nañ ni tey le le prochain président bi nga xamante ni tey war na ñëw bu ñëwee incha allah dina ko yegal